ci bés bu tedd bu màgg bii. ñu ciy fàttaliku suñu sëriñ. nee na ñu ciy fàttaliku suñu sëriñ. président mi ngi lay siyaare bu baax Mbacke. nee président mi ngi lay siyaare. di fàttali kóllëre sa diggante ak yow ak njaboot yëpp. nee na mi ngi fàttali kóllëreem diggante yow ak njaboot gi nga ko bokkal yëpp. di la sant di siyaare. nee na mi ngi lay sant ca di la siyaare. ci jàppale bi nga koy jàppale ci liggéey bi nga xam ne moom suñu borom. nee na ci jàppale bi nga koy jàppale ci liggéey bi nga xamante bi ne borom moo ko teg ci loxoom. nee na moo tax mu ne bis bii faaw mu yabal ko fi. pour fett li seen diggante. ak yow waaye sàkku ci ñaan. ndax bis bii bisu ñaan la. nee na xam na ne bu ko ak jotam mayoon. moom mooy teewal boppam fii ci bis bi. waaye xam nga li ko gàllankoor. nee na jamono yi ñuy wax sax ne nekkul senegal nee na moo tax mu tànn délégation bi yabal leen fi. pour ñu ñëw indi ko siyaaram. bokk ak yow bés bi. sàkku ci ñaan comme ni ma ko waxee léegi. ci ñaan comme ni mu la ko waxee léegi. nee na mi ngi la ci ñaan yow tam nga yàgg fi lool te wér. yàgg koo woote. kon boog sëriñ bi. nee na kon boog sëriñ bi. président mi ngi lay siyaare. président mi ngi lay siyaare. mi ngi lay ñaanal. mi ngi lay ñaanal. sàkk nga ñaanal ko bu baax ba yéene yi nga xam ne am na ko ci réew mi yëpp nee na mu mën ko motli ak jàmm nee di sàkku ak a ñaan nawet bii ñuy jeexal nga ñaan suñu borom may ñuy muurloo ak jàmm réew mi am na jàmm waaye suñu borom yokk jàmm ji te loolu yëpp nekk ndimbal ci njaboot gi waaye ci àdduna bi bi yëpp. ndax lépp xaj na ci bis ndax lépp na ci bis na kaddu yi moo nekkoon loolu. kaddu yi cant la. kaddu yi siyaar. kaddu yi feddali kóllëre. kaddu yi feddali kóllëre. waaye kaddu yi sàkku ñaan. waaye kaddu yi sàkku ñaan. kon nee na mi ngi lay yebal it yóbbante it. nee na mi ngi lay. yóbbante nee na mi ngi lay yóbbante. ci waajuram. ci waajuram. ci ci kilifaam. Cheikh Mamadou Mountakha mu sëñ Bassirou nee na mi ngi koy sant bu baax di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi waaye di ko ñaan mu continuer ñaan yi mu koy ñaanal jërëjëf Mbacke nee na loolu moo nekkoon nee na asalaamualeykum. ñu dégloo nee na ngi nuyu ministre bii di Dame Diop nee na doom day mbokk la. di xarit mi ngi nuyu it Serigne Cheikh Abdou Bali Mbacke mii mu ngi nuyu soxna Ndeye Sari Diop moom it di ministre bi nga xam ne moo yore mbirum jigéen ñi nee na mi ngi leen di nuyu ak ñi ngeen àndal ñëpp mi ngi leen di nuyu. nee na it mi ngi leen di yóbbantam nuyoo ci président de la république moom mi nga xam ne moo leen tànn yónni leen ci bis bii ngeen tiiwal teewal ko ci bis bu rëy bii nee na ndegam ñu leen dikk rek dikk na moom ci boppam nee na mi ngi koy sant ci lool yi te di ko ci gërëm nee na bis bi nag day bisu Serigne Touba di màggal goo xam ne yoonu mur yëpp la concerné ndax Seyxul Xadiim moo tax ñu di ko def kon képp ci teew walla nga def ci dara nee na dana la sant dana la gërëm mu ngi ñaan mboolem yiw yi juddoo ci jaamu yàlla yiñ fi def ak alxuraan ak xasida ak liggéey yu baax yi yiw ci juddoo sun borom boole na ko nun ñëpp mu daj topp waa réew mi nee na nag mi ngi dellu di nuyuwaat président de la république nee na xam na ne jox na màggal gii ab cër ndax at mu jot mu def nii mu def dana yebal kilifa boole koog ay kilifa ñu teewal ko ci bis bi nee na loolu yëg ko mi ngi ko ci sant nee na mi ngi sant it autorité autorité yi nga xam ne ñoo ko fi nekkal yépp ci région bi ndax ndax nee na ndigal yi ñu leen joxoon yëpp gouverneur jox leen ko defe nañ ko nañ ko bëggee nee na loolu kon ma ko cee sant di ci sant it nag ñoom ñoo yi nga xam ne ñoo doon jëfe ndigal yi nee na it mi ngi leen di ndokkeel ci xew-xew yi weesu la ci ëpp solo mooy gis na ne te loola na te lépp amee ci jàmm ak salaam loolu daal moo ko ci neex muy jàmm ji ak salaam ji lépp egg ci jàmm ak salaam kon nee na mi ngi kii mi ngi ci ndokkeel di ci ndokkeel suñu bopp ak réew mi yëpp ndax moom mii de réew mi rek moo ko intéressé lépp loo xam ne xew na ci réew mi daf koy yëg moom njabootam ak ñépp kon ndax bu doon jàmm ñoo ci ëppale ndax ñoo ëppale njaboot bu dee aw ayit kenn di leen ci ëppale kon ndokk bi lépp tegee ci jàmm kon daal jàmm jooji yiteel la ko de nee na yàlla wuy te sax dakk ci réew mi nee na mi ngi leen di gërëm di leen sant jërë ngeen jëf nee na mu ngi sant président di ko gërëm di bàyyi xel Serigne Cheikh Abdou doomam ji nga xam ne moom ngeen àndal fa tabaarakallah mooy léppam la tabaarakallah